seetaan ci wasaare lamb comme niñ leen ko waxee ba léegi ñu ngi fii ci Njaanjaay fatik ci arène Ngor Sid Ndour première demi-finale diggante Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur deuxième demi-finale diggante Ibou waaw plateau A mu ngi noonu Ibou Ndiaye moo fa nekk ak ordinateur ordinateur war ñu ginnaaw ngeen moo ngeen bu lu ñuul li Ibou Ndiaye war ñu kanam ñu ngi noonu jàppante nañ loxo Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur Ibou Ndiaye dafa laa bëgg a dox ci kaw ordinateur waaye hey ay boo xamoon ordinateur mi moo génne arobase sànq damaa ne woon remake ndax ñoom ñaar dañoo tase woon te drapeau chef de ordinateur présenté wu ànd ak waa Kaolack attention eh ordinateur jëli na Obali jëli ko takk na ko takk ko takk ko rëcc na Ibou Obali rëcc na Ibou Niang Obali rëcc na eh ñaan na am na lu mu wax arbitre ngi gis diggante Ibou Senghor la ak Ibrahima Ibou Senghor Ibrahima Ndour Ibou Senghor Ibrahima Ndour Ibou Senghor Ibrahima Ndour ordinateur Ibou Ndiaye Obali waat na fële ca diggante Ibou Ndiaye ak ordinateur léegi ordinateur da koo jékku woon Ibou Ndiaye génn ci waaye dafa mujjee fattu daw dem wuti ndox signalé arbitre may ko mu wuti ndox pour sëlmu ji fële yéen ngi gis Ibrahima Ndour ak Ibou Senghor Ibou Senghor comme d'habitude maninam da lay jàpp forcé la jaay la doole bu la jekkoo daan la waaye keroog ca adresse Senghor gis na lu mel ni buy tas yaakaar fa ñëw tas yaakaaru ñëpp waaw booy fay ne ko booy kaay booy nga mu ngi noonu Ibou Senghor Ibrahima Ndour ordinateur Ibou Ndiaye Obali ndeysaan fii a ngi neex fee nga neex fii a ngi neex fee a ngay neex diggante Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur ak diggante Ibrahima Ndour ak ibu Senghor 2 ñu ngi noonu lan la am na ko signalé nee na daa fatu ay waay fomp nañ ca yére arbitre ba ay waay ay waay ndeysaan arbitre bi yéreem lay joxe gaay fomp ci seeni bët ndeysaan ndeysaan fële diggante Ibou Senghor ak Ibrahima Ndour la ordinateur Ibou Ndiaye Obali jàmpante waat nan ca jàppante bu njëkk ba eh Ibou Ndiaye mi am na lu muy daw ci Obali eh, astafurla Ibou njaay mi Obali mi am na lu muy daw ci ordinateur am na côté boo xam ne nii du bëgg mukk ordinateur féete ko fa bu ko féete rek day daw génnaat waaye fole Ibou Senghor a ngay voilà sottiwul Ibou Senghor dugal na yaram yëpp ndeysaan arbitre ba dox sama diggante ak moom fii diggante Obali ak ordinateur fële diggante Ibou Senghor ak Ibrahima Ndour ñetti Ibou yi ku ciy njëkk a génn ndeysaan déggal mbayang Ibrahima Ndour ak Ibou Senghor fii arbitre jox na leen avertissement ñoom ñaar ñëpp jox na Obali avertissement jox na ordinateur avertissement attention ordinateur jëli na Obali jël na tànk ba ordinateur jël na tànk ba eh sànni na ko da ko teg ci biir puus ko waaw ndeysaan lii de bokkul ci li may gis bokkul ci lima ma gis de jël na tànk ba mu teg ko ca biir ba puus ko tuuti kon mu àgg teer Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur Ibrahima Senghor ak Ibrahima Ndour ñoo nekk noonu ci géew bi ñaari demi-finale yi ordinateur Ibou Ndiaye Ibou Senghor Ibrahima Ndour fële Ibou ak Ibrahima Ndour attention Ibou Senghor a ngay liggéey Ibou Senghor a ngay liggéey waaw fee arbitre tàqale na Ibou Senghor Ibrahima Ndour avertissement arbitre dàq na ba sifflé waat arbitre na diggante Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur fële it ba sifflé na diggante Ibou Senghor ak Ibrahima Ndour ndaw demi final yu neex Ibou Ndiaye ak Obali kan mooy génne sa moroom déggal waa man lu may wax lii Ibou Ndiaye ak kuy génne sa morom ndeysaan jàppante waat nan jàppante waat nan waa lumière be sama ginnaaw moom sama kanam ndeysaan projecteur be yéen ñii seetaan dina leen xaw a yàqal seetaan de waaye xaar leen ma buuse moo gën damay buuse rek ndeysaan fole Ibou Senghor Ibou Senghor Ibrahima eh! Ibrahima mboot na Ibou Senghor Ibrahima mboot na Ibou Senghor Ibrahima mboot na Ibou Senghor lan la di wax Ibrahima Ndour mboot na Ibou Senghor eh, c'est terminé c'est terminé c'est voilà c'est terminé Ibou Senghor jëlal sa licence nga dem sangu ji suba am na 5 millions wala 6 millions ca Iba Mar Diop ndeysaan Obali ak ordinateur kan mooy fekk Ibrahima Ndour en finale Ibrahima Ndour qualifié na finale Ibou Senghor nañ ko ca jëlaat na tànk ba ordinateur jëlaat na tànk ba jëlaat na ba Obeuli daw ba génn ca ay bi komba ordinateur Ibou Ndiaye Obeuli ndeysaan ordinateur Ibou Ndiaye Obeuli ba léegi ñu ngi ci demi-finale bi bii moo ci des ñu xam kan mooy fekki Ibrahima Ndour diggante ordinateur la ak Ibou Ndiaye Obali demi-finale bu metti ndeysaan demi bu metti arbitre sifflé waat na kan ngay jox avertissement wala da leen koy tëgg ñoom ñaar ñëpp arbitre avertir na Ibou Ndiaye Obali muy deux mu avertir ordinateur muy deux mu des benn ku am benn ñu disqualifié la arbitre sifflé waat na génnaat seen diggante ne leen leen bëree fi des yéen ci des kii qualifié en final ba pare di leen xaar gaaw leen bëre ngeen am temps de récupération as tuut naan ndox fomp ñëw taxaw ñàkkante li des waaw waay Ibou Ndiaye Obali ordinateur demi-finale bu mujj ba ngoog ndeysaan Baye Djili Baye Djili yaa ngi tardé Baye Djili yaa ngi tardé fii ci Njaañaay fatik gis nga xale yaa ngoog ay mbërëntaan lañ ordinateur jëliwaat na ko jël na tànk ba Ibou Ndiaye Ibou Ndiaye ordinateur jël na ko eh Ibou Ndiaye rëcc na Ibou na ko génn na dafa diis dafa diis dafa diis eh eh, eh! Ibou Ndiaye et c'est la fin ordinateur jël na ko ci kanamam nee na ko ñaata yoon ñaata yoon ñaata yoon maa fee na au jag 300 000 nu ngorgoorloox ngir nu ndef aca ma vraiment ta soti jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun boobaak léegi fii ci njaajaay Fatick ñu romb léegi demi-finale yi diggante Ibou Ndiaye Obali ak ordinateur ordinateur génne ko par avertissement Ibrahima Ndour ak Ibou Senghor Ibrahima Ndour mbot ko mbot mu rëy mu des final bi diggante Ibrahima Ndour ak ordinateur ordinateur ngem boo lu ñuul li woon ñu ginnaaw Ibrahima Ndour moo ñu woon càmmoñ booy xool ci jëmm moo sut ci yaram moo xaw ëpp waaye kenn du ordinateur kenn du ordinateur mbër waada mbër mu mat mbër la mbër mu xam boppam la bu xasee nekk ci làmb ji day concentré wu di début à la fin loolu rek mbokk yi bokk na ci armi yi nga xam ne mbër mu ko ame pour ñu daan la dana xaw a jafe ndeysaan làmba ngi noonu Caaka ñëw na fi éliminé nañ ko par avertissement attention Ibrahima jàpp na benn loxo ci ngemb eh, ordinateur fu mu jëm ak Ibrahima a ngay ñokkali jël na bopp ba eh attention Ibrahima day waaj mboot Ibrahima day mboot Ibrahima day mboot Ibrahima day mboot jiitu nga jiitu nga jiitu nga jiitu nga jiitu nga jiitu nga oh Ibrahima. sa bës bii tey dootoo ko fàtte ordinateur daan na Ibrahima Ndour ordinateur daan na Ibrahima Ndour ordinateur daan na Ibrahima Ndour ordinateur daan na Ibrahima voilà c'est fii ci arène Ngor Siid Ndour bu Njaay Njaay Fatick noonu la woon lamb ju neex ngeen gis ténor yi nga xam ne teew nañu fi tey Thiaka Faye teew na fi Ibou Senghor numéro 2 teew na fi Ibou Ndiaye Obali teew na fi Ibrahima Ndour teew na fi Ngor teew na fi ndeysaan waaye ñooñu ñëpp tey ki yóbbu ndam li mooy ordinateur gàcce ngalaama jaajëf ñu leen di jox dig daje mbokk yi ba suba incha allah ca Iba Mar Diop. ca 6 millions ya jaa ngeen jëf cant ngërëm ñel na leen